six mois yi moom rombagul c'est-à-dire que bi ñu liggéeyee ba xam ne dafa am njuumte ci biir euh, defar dossier bi dañoo joxe ordre de de suspension de délai <coughs> mooy ordre de boo xam ne day suspendre délai yi pour may ñu aussi ñu mën a diagnostiquer ndax xam nga yenn saa yàkkamte yàqul rek lay jur ndax xam nga léegi stade yi boo ko defaree ba pare il faut faaf ak FIFA dañ koy certifier CAF ak FIFA pour que match internationaux yi man faa nekk te gouvernement bi yéene bi mu am mooy stade Thiès boobu nekk deuxième stade bu am gazon naturel ndax xam nga haute compétition yi dafay laaj ñu am gaso naturel état bi defoon programme yaakaaroon na 1 milliard 085 millions doyoon na pour def loolu biñ demee bu ci biir ñu gis ne am na manquement yu bëri yoo xam ne même bu paree te loolu amu ci day tax bu kenn du ko certifié te buñ ko certifié wul nag nawetaan rek lañ fay mën a joué waaye kenn du ko joué match bu am solo tax gouvernement bi ne ni Thiès demee ci ñoom ak ni mu amee solo ci ñoom dañuy dem wuti li des ci xaalis pour mën ko compléter ci loolu nag nguur gi nar na ci yokkaat encore juróomi téeméeri million ak juróom fukk pour stade bi mën a conforme on normes international ci xaalis boobu dañu fa woon peinture stade bi xam nga kon lu ñu fa defoon tey te peinture wuñ ko day mel ni kenn def fa dara ñu fa woon aussi lamp yi nga xam ne ñoom ñaar fukki mètre ak juróom la ñu waxoon FIFA defa ne il faut ñeent fukki mètre bi dañ defoon juróom-ñetti junni mètre carré FIFA ne non il faut juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer amul woon vidéo de surveillance ndax xam ngeen li amoon ci stade Léopold Sédar Senghor bu ñu gaañ fa ay nit yàq stade bi pour bañ loolu amaat FIFA dal di wax ne stade bu ñu defati nañ def vidéo de surveillance def ci ay salte anti dopage pour ñi nga xam dañuy dem jëli ay doppe pour fausses compétitions yi loolu mën a dakk ak ay infirmières pour gaañu man laa faj et yokk ci loolu yëpp daal bi ñu ko xaymaa mu jege encore daanaka juróomi téeméeri million ak juróom fukk nguur gi taxaw tem pour def loolu fii ma nekk di signé nañu avenant bi nga xam ne loi bi moo ñu tënk ne il faut ci juróom benn rek la war a toll ci marché bu passé léegi nag euh, li ci des marché complémentaire la laajoon liggéey nañ ci dossier yi am na yaakaar ne ci fan yu neew rek dinañ ko def waaye loolu taxul na liggéey bi arrêté parce que xamoon nañ ne gazon bi dafa jafe tuuti ñu ngi dem bu ci ginnaaw ci àll foofu la ñu wute woon suuf parce que li dañoon manière suŋaare <laughs> ba xam ne gazon sax mooy dañuy jël suuf bi ñuy tabax rek sotti ko fa war que pour defee stade leneen la laaj donc suuf si dañ ko importer feneen mu ñëw ñu traiter sol bi fexe ba nga xam ne bu ñu ko jiwee na mucc ayib en tout cas test yu ñu def on a quand pour cent de réussite par rapport ak test yooyu commandé nañu système d'arrosage bu dernière génération nga xam ne France lañ ko jëlee indi ko bu ñu ko installé rek ñu commencé jiw gazon bi yaakaar naa la ci Sénégal kon yaakaar nañu ne donc nañu amaat yaakaar que ne Sénégal dina mën a abriter waat euh, Coupe d'Afrique Caroline fay bu Mbour certifié nañ ko Amitié dañ ko certifié Lat dañ ko certifié euh, Alassane Djigo Beye mën nañ ko certifié te état Sénégal aussi gënal lu mat fukki milliards yu tegal pour tabax stade régional carrément avec tous les équipements nécessaires ci Kaffrine ci Sédhiou ak ci Kédougou te yooyu yëpp dina démarrer incha allah ci année bi jàpp nañ yaakaar ne aussi deg nañ président de la République di wax ne dafay tojaat stade Assane Diouf tabax ko foog nañ ne bu loola amee moom dëgg-dëgg Sénégal mun na nekk candidat ci lu leer loo xam ne benn équivoque ci ci du ci am te bu ko nekkee aussi yaakaar naa ne dina mën organiser ci xel mu daal Rufisque bi dina démarrer na déjà travaux yi parce que nguur gi ci dañ ko tëjoon juróom-ñaari at ndax dañ ko joxoon benn société wante yàlla dogal ne société boobu daal def fa juróom-ñaari at mënul defar affaire bi gouvernement bi rejeté contrat bi lancé waat appel d'offre bi ñu participer gagné ko gouvernement bi dénk ñu liggéey bi comme ñun faral nañu liggéey gouvernement bi tous les jours. gouvernement bi ñaan ñu nag nañu nag euh, budget bi dafa weesu ci déwén lañ koy dugal ci budget 2017 mais comme suñu partenaire nga dañ lay ñaan nga génne sa xaalis nga préfinancé démarré ko léegi ni ndax population te ngay yàkkamte nañu loolu tax nañu jël lu mat juróom-ñett téeméeri million di ko ci def pour que bu ñu demee bu ci année ba parce que bu ñu ko defal mois de février la naroon démarré wala mars mais incha allah na alxames bii di ñëw ministre du sport dina ñëw pour lancer travaux yi officiellement et yaakaar naa ne juróom benn weer après lancement bi ci yoon euh, stade bi war na euh, pare